Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour. Je voudrais aller au Sénégal pour fêter la fête de la Tabaski, mais jusqu'à présent, monsieur le directeur, j'ai d'énormes difficultés pour avoir un billet d'avion. yow yaay ki nga xamante ni yow yaay tabaski ji ak jàmm ci anam gi gën xaaral tuuti suñuy ndaw daal di ñëw taxaw ci sa soxla. salaamaaleykum directeur. maaleykum salaam. ñun Baye Fall yi benn bëgg-bëgg rek lañ am muy dem màggali Touba naka la ñuy def ba dem màggali Touba. yow yaay kii dem ziyaare ji. réservation yi ak njaayum billet d'avion yi yombati na ak almuxaram fly ñun ñoo leen di defal assistance pour bépp profit yow mi nekk France nekk Allemagne nekk Autriche nekk Chine nekk Italie nekk Belgique wala Parme yow mi bëgg dem màggal ji Touba yow mi nga xamante ni tam da nga bëgg a dem ci mois d'août bi dem ci réew bu Sénégal seen njàmbat jeex na yow mi bëgg dem ci sa njaboot ngir màggal tabaski ah seen njàqare jeex na ak almuxaram fly ñun ñii ñoo leen di defal xéewal leen seen billet d'avion lijjanti ko mu nekk kocc ngeen tukki tukki bi mucc ayib ci anam gi gën yéen ñi nekkee ci bépp réew bu tugal boo mënti nekk gaaw leen a gaaw jokkoo ak ñun ñu daal di saafara seen bëgg-bëgg ngeen tukki tukki bi mucc ayib delluwaat ci seen réew ak xel mu dal taamu naa ci almuharam flies ñu ngi nekk ci Vérésie Milan Malpensa lu serewul dara ak aéroport bi jokkoo ak ñun ci 329 431 17 71 wala nga def 320 284 44 42 almuharam fly voyagel ak xel mu dal